tey waa région de Thiès ñëw nañ fii amal li ñuy wax conférence territoriale conférence territoriale nag di xeetu waxtaan boo xam ne dafa ëmb ñaari pàcc bu njëkk bi mooy li ñu def léegi dajeeg gouverneur préfet autorité territoriale yëpp chef de service yi waaye tamit ak élus yi moo xam maire président de conseil départemental yi waxtaan ak ñoom ci problème bi nga xam ne président de la république da ko noté ci réew mi gis ne Sénégal mi ngi dox mi ngi avancé koom baa ngi yokku fu ñu dem rek ñu ñuy wax lu rafet nañu seen dëkk am na jàmm am na teraanga am ngeen kilifa diine yu baax nit ñi am nañ xam-xam waaye nag nee na seetlu na ne lépp lu jëm ci set ak organiser kenn du kenn duñu ci tudd loolu nag xam naa teggin na rek pour wan ñu ne loolu des na lu bëri lu ñu ci war a def loolu nag ba tax mu créer ministère boo xam ne dafa am pàcc boo xam ne moo tudd hygiène publique département bi nga xam ne mooy hygiène publique yemul foofu pour wane dogu bi mu dogu ci liggéey bi bi gannaaw ba mu defee discours am bi nga xam ne kenn du ko fàtte le 2 avril ci investiture bi wax ci yii yëpp mu créer ci biir direction yi direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique créé direction de la lutte contre les encombrements créé direction de l'hygiène publique et de la propreté loolu nag mooy wane dogg bi nga xam ne am na ko ci mu jox ñu ndigal ne li ma bëgg mooy ngeen wër Sénégal waxtaan ak ñëpp moo xam autorité territoriale yi moo xam ñi nekk ci collectivité territoriales yi moo xam ne élus yi la moo xam maire yi moo xam président conseil départemental yi ne leen dogoom la leen bëgg a wan te defar Sénégal ndaxte nag réew mi fi mu toll ak màgg bi muy màgg du caagin ne dafa yebal nit ñi ngir ñor yat di ko dóoree wala ñuy xool sénégale yi nga xam ne dañuy góor góorlu di yeewu fajar di liggéey di defar di jaay di leen xañ seen wërsëg déedéet dafa ne rek fi réew mi toll war nañ ko defar ku ci ne fa nga ne la nga xam ne moom ngay def état jox la sa cër waaye sàkkal la bërëb bi nga xam ne moom nga fay def ndaxte li xew ci réew mi boo ko seetee ci Thiès wax nañ ko ci marché centralu Thiès nga xam ne dafa dem ba nga xam ne ba ci autorail yeeg yooyu sax dañ ciy lal di ci jaay nga xam ne at mu jot gouverneur dinañu signaler ay nit yu ci perte seen bakkan ci ay accident ñu dem ba nga xam ne rond yi bàyyeetuñu leen rond yi nga xam ne sëlëbe yoon la boo xam ne day tax ku yor oto mën fa jaar waaye di doon luy taaral dëkk ñu dem ba nga xam ne mënatuñ fa def nga dem ba nga xam ne place publique yi nga xam ne état daf ko ubbi yóbbu ko def ko fooraay tey am ñu koy ñu fay bañ a dem ndax amul ndox amul courant dëgg la waaye di occuper digg dëkk bi ndax jàpp nañ ne rek ku ci ne li nga décidé moo war a am waaye du li gouverneur wax wala lu ministre wax moo war a am loolu nag président ne dina ci jël matuwaay yoo xam ne lu am solo la dénkuñu ko ñun nii ma wax leen ko sànq ne dogu bi mu ci am moom lañ ci am ndigal bi mu ñu jox noonu lañ ko nar a jëfee déglu nit ñi ndaxte ku ci ne problème bu amee am nga noo koy dundee am nga loo ci xam lu ci état xamul dinañ waxtaan ak ñoom wax leen li ñu xalaat wax leen ni ñu ko gisee waaye nag jëf du mën a ñàkk waxtaan bu jëm déwén te du am jëf du fi am du fi am loolu lañ nar dañu nar a waxtaan ba ku ne ñu déglu la wax leen li nga xam ne moo mën a ne ñun nag ñi ngi waaj ñi ngi defar suñu stratégie ñi ngi wut moyens yi ci war ndaxte li ñu war mooy pérenniser maanaam lu ñu def rek mu doon loo xam ne day sax faaw waaye du doon loo xam ne dañ koy def rek mu doon tàkku tàkku mbooyee ci ëllëg sa nit ñuy jógaat déedéet loolu fekk maa ngi nekk ci ministère bi lool du fi am li nga xam ne nag ne moom lañ jàpp monsieur le mooy comité régional bi nga xam ne dañ ko bëgg a teg ci région bu ne nga xam ne yéenay évaluer plan d'action yi wax ñu lan moo war ci moyen lan moo war ci ay nit ñu teg ko bu ko defee comité régional boobu ñu décliné ko département bu nekk am comité ngeen defal ñu évaluation defal ñu plan d'action bu ko defee ku ci ne bu ñu tàmbalee ndakaar ñëw ci région bu ne xool ko avancé ko yéen it ngeen koy saytul seen bopp ndaxte li ñuy def mooy wan leen yoon bi jox leen digal yi jox leen moyens yi waaye yéen ay defar seen comité weer bu jot ngeen toog ne defar nañ marché central defar nañ bërëb sàngam lii moo ñu manqué lii moo ci war. leneen li it mooy ngeen wax ñu décharge yi fan la toll ndaxte seetu nañ ne dëkk yu bëri li tax booy dugg ci dëkk yi gis ne àll bi dañ ko soppi def ko ay sën mooy amul ay décharge yoo xam ne dañ ko waajal ngir. Euh, di fa dajale mbalit yi ngir euh, bés bu ñu ko mënee commencé ko traité ak def ci li ci war leneen li tamit mooy ngeen cartographier maanaam ngeen wan ñu ci carte fan moo ajoo désencombrement ak fan moo ajoo setal bu ko defee service yi ak UCG dinañ leen jox moyens yi ci teg waaye yéen ñii yéen ay wax fan ngeen gis ne foofu yeyoo na ko ci lu gaaw leneen tamit mooy suñu marché yi ku ne xam na ne Sénégal tradition wu commerce daf am dëkk boo gis am na marché waaye mën na am marché yi bañ koy waajal Euh, téeméeri commerçant moo ko taxoon jóg marché boo dem boo xam ne téeméeri commerçant lañ ko waajaloon tey mën naa am junniy commerçant nga fa donc ñu nit état ñu xam ne mën na am lu sooxe la ci suñu doxalin li nga xam ne mooy fexe ba euh, li ñuy wax ci wolof wala ci tubaab anticiper nga xam ne ñun ñoo war a euh, dabu li nga xam ne mooy waaja xew mooy marché yu bëri yi ñun ñoo waroon mën na am tabax marché fu ne ñu def fa benn bu ko defee commerçant yi xajul ci marché centraux yi ñu mën leen yóbbu feneen donc dinañ leen laaj ngeen defal ñu étude moo xam urbanisme la moo xam service su commerce wax ñu marché yi bu ñu ko doon soppi naka la war a toll lan la war a am ci commodité maanaam ci évacuation ci ndox am na ku ko fi wax léegi ab marché dañ ko war a tëj waxtu ubbi ko waxtu tëj ko waxtu loolu tamit ñu taxaw ci ba nga xam ne réglementation bi dañ ci taxaw ñu wax tamit maire yi ñu jàppale ñu ci identifier ñu maanaam ay ay ay suuf wala bu ñu ko mënee wax ay pàkk yoo xam ne li nga xam ne moo war moo xam fourière la moo xam ay centre artisanaux la yoo xamante ne danañ fa mën a yóbbu ñi nga xam ne ñooy commerçant yeeg ñi nga xam ne dañuy jaay ñi nga xam ne dañuy yor métier ndaxte la ma gis Kaolack rek laay wax du yoon réew mu mel ni Sénégal boo amee hôpital ci maternité bi ci ci ci palanteeru maternité yi am ñu fa nekk di tëgg ay fourno di tëgg leneen ba nga xam ne tey dañ la naan hôpital sàngam de bu la yàlla nattoo ba nga dem di fa wasin mën na am sa doom day dellu ndax bruit bi fay am day dem ba jaxase système mu gynécologie beeg euh, système mu reproduction wu nit ki ba nga xam ne dañuy dem ba naan hôpital sàngam sa palanteer bu fa dàngam nekkee sa doom ji mën na am nga ñàkk ko loolu nag defe naa ne Sénégal war na jomb loolu fi ñu toll. kon monsieur le maire monsieur les maires ngeen dimbali ñu ci loolu soxla nañ dëkk bu nekk am fu ñu mën a def fourrière fu ñu mën a def ay zone de recasement bu ko defee lii nga xam ne dénk nañ ñu ko ñu def ko ci lu mu gën a gaawee tàmbali ko ci année 2019 bi am ci ay résultats yu gaaw bu ko defee ñu mën a déployer wu dem ci yeneen régions yi. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les autorités, toutes les populations de Thiès qui nous ont reçus ce jour pour effectuer cette mission, euh, la mise en place euh, de ces conférences territoriales qui vont nous permettre et qui nous ont permis aujourd'hui d'échanger avec les autorités territoriales, les forces de sécurité et de défense que je salue au passage, euh, avec les élus locaux, les collectivités territoriales, les associations, les chefs de service, pour évoquer, échanger euh, sur la question de la lutte contre les encombrements, mais aussi de l'hygiène publique. Il m'a été donné de constater, lors de mes visites à Thiès, Tiwawan, mais aussi dans le département de Mour que nous fréquentons souvent, que la circulation mérite d'être libérée partout au Sénégal, que les espaces publics doivent être aménagés, que chaque Sénégalais doit assumer sa part de responsabilité dans ce défi lié à l'hygiène publique et à la lutte contre les encombrements. Euh, cette situation entame notre dignité, mais aussi notre fierté de Sénégalais. J'estime que Thiès et les Thiessois méritent un meilleur environnement. Ils méritent aussi que cette question, euh, que je qualifie de question de dignité urbaine ou d'urbanité, mérite un traitement, une prise en main par chacun. Nous étions venus pour informer les Sénégalais, les Thiessois, de la situation de notre relation avec les espaces publics. Les espaces publics sont des espaces collectifs qui nous appartiennent à tous. L'État a sa responsabilité, les services techniques, les collectivités territoriales, mais chaque Sénégalais doit jouer sa partition. Chaque Sénégalais doit assumer sa responsabilité dans ce qui est, euh, ce qui est, euh, ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler ce défi. ce défi de la relation avec l'espace public, ce défi de la révolution de nos espaces publics. Et nous le devons au Sénégal, nous le devons à nos régions, nous le devons à nos localités. Monsieur le gouverneur, les différentes personnes qui ont pris la parole, notamment les préfets, les maires, ont évoqué beaucoup de questions. Euh, la question du marché central de Thiès, avec des préoccupations majeures dans la région de Thiès, dans la ville de Thiès, l'avenue Niagne-Sow, euh, dont on dit je sais pas si le terme peut être accepté, mais pétersenisé. Ça, ça doit vraiment évoquer les... Ça vraiment réveiller les Dakarois. L'avenue de avec les cantines débordantes, qui ne respectent plus les limites euh, qui leur sont, qui leur sont, euh, qui affectées. Le rond-point Diakhao, qui est occupé, de fait, par des commerces. Et tout cela mérite notre attention, mais mérite aussi notre action. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est échanger, informer, mais il sera nécessaire d'agir. et nous agirons sans état d'âme. Donc, monsieur le gouverneur, je vais vous demander d'abord de procéder à la mise en place des comités régionaux pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements, de les décliner au niveau départemental, que chaque préfet mette en place son comité régional, son comité départemental avec les services techniques, les collectivités territoriales, mais aussi les associations, de nous faire parvenir dans les plus brefs délais leur plan leur plan d'action et d'évaluer ces plans d'action de façon à nous permettre de prendre en charge ce qui nous, est, ce qui nous revient en termes de compétences. Il faudra aussi, en collaboration avec l'UCG, nous faire la situation des décharges, parce que nous constatons que même si on considère que les infrastructures comme les décharges sont juste euh, une, une, une, une zone de transition des déchets, parce que dans le monde moderne dans lequel nous vivons, les déchets ne sont pas destinés seulement à être déchargés ou dépotés. Ils sont destinés à être traités, à être valorisés et à être neutralisés du point de vue environnemental. Mais d'abord, de nous faire une situation des décharges, de nous faire aussi une cartographie, une cartographie des espaces à désencombrer. Il vous revient aussi, avec les services techniques, les services du commerce, de l'urbanisme, de nous faire des études sur la réhabilitation et le redimensionnement des marchés. La cause de l'encombrement humain ou de l'encombrement commercial qui sévit dans nos rues et dans nos avenues, c'est le sous-dimensionnement de nos marchés. Nos marchés ont évolué. Ce sont des espaces de vente de commerce qui étaient destinés peut-être à recevoir 100 commerçants. Maintenant, il y en a Et naturellement, cela déborde. Donc, pour vous dire à quel point l'État ne compte pas seulement faire des actions sporadiques, des feux de paille, nous dans la prospective. comment régler ces problèmes de façon définitive Vous avez évoqué la question du Rien qu'à Dakar, le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre à notre disposition une brigade de 150 éléments. Et on en fera de même dans toutes les régions, dans tous les chefs-lieux de région. Donc nous sommes dans tous les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de département. Nous sommes déterminés à pérenniser les actions que nous allons poser. Nous ne sommes pas là pour effectuer des tournées, pour euh, énoncer des discours, revenir à Dakar, faire quelques puis oublier cela. Notre rôle, c'est d'éradiquer de façon définitive cette situation qui ne peut plus tenir au Sénégal. Donc nous demanderons aussi aux maires d'identifier des espaces pour abriter des zones artisanales, des fourrières et des zones de recasement pour les commerçants. Parce que comme je vous l'ai dit, si cette situation a existé, c'est parce qu'en partie, notre urbanisation ou notre urbanisme n'a pas prévu ou a prévu mais n'a pas euh, mise à jour ces zones qui ont dépassé le cadre dans lequel ils ont été confinés. Donc il nous faut aujourd'hui avoir de nouveaux sites de recasement, des zones artisanales, des zones de commerce que l'État pourrait aménager et mettre à disposition. Donc, messieurs les maires, nous vous solliciterons en collaboration avec les gouverneurs et les préfets pour que vous nous fassiez l'état de ces situations. je vous remercie.